maa ngi présenté wu ma ne Aly ñun ñoo nekk Dangote di fa liggéey Dangote bi nekk di liggéey nag vraiment bari na ay jafe-jafe trop trop trop trop trop ci ci personnel bi fi nekk entre personnel bi ak ñun ñi nga xam ne ñoo ñooy grossistes yi vraiment suñu gëdd biñ ñu war a jox ak suñu cër biñ ñu war a jox zéro amu fa personnel bu bari nag wala bu amee ci néew la ci ñoom ñu ci bari respecte respecté wu ñun grossistes yi te du man rek ñëpp la daanaka ñëpp. ñëpp la ñëpp la voilà kon loolu dañuy ñaan ya la ñuy day bëgg loolu première fois loolu dakk ndax ñun ak ñoom dana war a collaboration collaboration bu rafet liggéey bu liggéey bu rafet ñun ak ñoom boo xam ni dafa mucc ayib loolu lañ séntu woon ci ñun fii teg wante gis nañ ni ñun leen séntu woon ci ñun fii teg loolu amul loolu amul kon nag léegi liñ bëgg mooy ah gis nañ ni ciment bu yokk nañ fii am envoyé naa ah, wax na directeur général danoo bëgg ñu toog ak yow mu tombeek loolu ni la quinze mu accepté kii boobu ñu dem toog ak moom bi ñu demee toog ak moom def ci cinq points ci ciment bi bi ñu toogee moom def cinq points ci ciment bi waral ni ko cinq points yi leen bëgg a waxtaan ci usine bi ni muy doxee neexuñu moom benn rek la ci gis benn bi mooy deux mille six cent yi ñu ko wax dañ ko yokk ci ciment bi dafa seer mu mel ni ku mer suñu kaw te waroon ñoo taral tatagal na deful loolu mer suñu kaw war na ne comme moom ciment ndax dañ koo xamal ni ko yow sa ciment moo ci gën a seer ci ñett yéen yow yaa ëpp loo ci yokk bi yow yaa ëpp loo yokk ci yokk bi waaw ban ko jàllalee message boobu message boobu rek la dégg xam nga lu ñu tontu bu doon man entre man mii duma ma tontu man du ma tontu ñu mu ma tontu loolu mu ma tontu sama jaaykat ndax sama jaaykat bu ma nee sama ciment dafa seer dinaa utal ko lay moom nag utalul lay dafa ñu ne carrément sama ciment dafa seer kon da di dem. ci yeneen usines yi nga xam ne moo gën a yomb loolu nag à directeur général warta comportement warta am comportement bu mel noonu ak ak ñi mu jiite ñëpp nag daanaka ñi ci ëpp noonu lañ mel muy ki jiite Alex mooy ki jiite directeur commercial moom tamit xam ne moom tamit njaay lañ ko sant ban ban ko falee ban ko falee muy ku bees dañ koo yebal mu ñëw sama kër ñëw seet si ma après nag ay ay at a ngi nii ñaari at a ngi nii boo ko oowee sax dala naa waroo amoo yow ko falu ñun la demal nuyu ju diw nga déplacé wu ñëw dem këram toog nuyu ji ko kooku am na droit oo la yow nga nekk ci usine bi ñu sant la lu usine bu produit lu usine bi produit na nga ko jaay na ko jaay ña la koy jaayal ngeen yow waruñu maa am droit oo ma man ci boobu usine rek laa ko gisee muy dangot ñun nag loolu moo am suñu jafe-jafe jafe-jafe yi du xaaj du jeex lu jëm ci lu jëm ci robinet benn fontaine lañ defal personnel ba fa nekk yëpp muy sénégalais yi muy malien yi loolu war nañ cee jóg ab douche amu fa douche ba fa am comme comme géej voilà douche bi comme géej kon loolu yooyu yëpp war nañ cee jóg war nañ cee jóg état bi war nañ cee jóg xool usines yi bu ñu taxawee Sénégal mu leen di contrôler ba xam lan lan defoon ci contrat ba ak ñoom ñi dañ bu ñëwee dañuy taxaw askan bi est-ce que loolu ñu defoon est-ce que loolu ñu ngi ci continuer ba léegi wala déet kon état bi wërta rek bu joxee licence rek gars yi liggéey rek mu toog bàyyi leen dafa war a am suy ñu leen di contrôler ba xam lanu digg woon def ko ci contrat bi tëxañ ko ci biir est-ce que loolu ñu ngi koy continuer di ko matal wala mataluñ ko kon nag état bi foofu war nay bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax gars yi muy jox suñu suuf si jox leen possibilité yoo xam ni lépp pour ñu ñëw ubbi seen société pour ñu Sénégalais yi di ci jariñu parfois bu nu duggee ba ci biir dañuy lool Sénégalais yi lañ leen def ab jàmm loolu daal état bi war na cee xoolaat bu baax a baax a baax a baax ciment bi danoo bëgg nag nu mu gën a gaawee ñu fexe ñu wàññi ko incha allah suba la lundi bu neexee yàlla dinañ 72 heures yoo xam ne ñun dañ koo bëgg a taxaw dul liggéey ak ni taxaw doo liggéey ni muy méttee yépp ñun loolu dinañ ko def ngir ciment bi ñu wàññi ko ñëpp gis ci seen bopp. Dangote tamit jox ñu suñu gëdd bi nga xam ne moom la moom entre kuy liggéey ak kuy liggéey lu vraiment danoo bëgg ñu jox ñu joxante gëdd ñun embauché wuñ dañuy produit ñu leen di jaayal kon nag ñun dañoo war a jox cër. deuxième fois Dangote dafa defaat leneen dafa yor oto boppam yoo xam ni ñoom ñoo koy transporteral marchandise bi te pour li ma yaakaar foofu amoo droit ubbi sa société ba pare di defaat sa commence deuxième fois bu fekkoon tey jii ci misaal man damay fayeeku Touba mille francs moom ay mille nangam lay fayeeku kon kooku neexu la concurrence ba pare otaam bu ñëwee du rang oto Dangote bu ñëwee ci usine bi du rang te moo nekk priorité boo demee ci biir tamit moo nekk priorité pourquoi même bu fekkee yoon may na ko muut oto dafa war a yem ak ñun bu ñëwee rang ci bunt bi ñu koy rappel comme ni ñuy rappelé loolu daal lañ bëgg égalité nekk am ci usine bi état bi fi nga xam ne moo leen jox autorisation tamit mu dem saytu mbir yi nan la gën a rafetee nan la gën a baaxee te du usine boobu rek usine yëpp mu saytu leen ba nga xam ne comme ci jox le permission pour nga liggéey ah la nga signé ci biir nga koy matal asalaamaaleykum wa rahmatullah